diglul ma wax la ban bayam nuróole ak sayxu mamar jaara yàlla boole sëriñ Mouhamadou Mbacke sëriñ Mouhamadou Mbacke ñu gën koo xam ci sëriñ Mamour Jaara Mbacke borom saam di kenn ci njabootug sëriñ Mamour Anta Sali Mbacke mi ngi gënee jamono ci dëkk bu sell bi di Mbacke Bawal atum 1850 miladiya dëppoog 1267 ci gàddaay gi mi ngi askanoo nag ci ñaari waajur yu sell di sëriñ Mamour Anta Sali ak soxna Jaaratullaahi Buso nekkoon mag ci ku tedd ki di sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ba noppi nag wan ko ak taalibe gu ma sëkk nekkoon ku siiwoon ci dëddu ak sàmmonte jaamu yàlla ak ba bëggiinu la ba noppi daan ci soññ nit ñi doonoon tamit ku daan fanaani la guddi gu jot téeméeri rakan mi ngi commencé njàngum xam-xam ci Mbàkke Bawal ci waajuram di sëriñ Maamo Anta Sali ak nijaayam sëriñ bu soobee géeju ci mbooleem fànni xam-xam yi ba mujj doon ab sëriñu daara di jàngalekat bu mag ba ñu bari doon ay boroomi xam-xam jaar nañ ci ay loxoom doonoon ku daan yare di digle lu baax ak tere lu bon doonoon tamit ku daan dundee lu leew ngir wane nit dafa war a dundee lu leew nekkoon tamit murit bu dëggal ci kanam rakkam ji di sëriñ Touba Xaadimu Rasul Serigne Mamour Diarra borom saam nii la fi nekkee woon di jàngale ak di yare di digle lu baax ak tere lu bon ba xëy wujj suñu borom ci bisub altine ñaari fan ci weeru korité atum ci gàddaay gi dëppoo ko 1921 ci miladiya ca Mbàkke Bawal gannaaw ba mu ko fekkee mu doon waajal jàpp ngir julli fajar Serigne Touba Xaadimu Rasul joxe ndigal ngir ñu denc ko fële ca Mbusoobe ci wetu nijaayam Serigne Mbusoobe Serigne Mbàkke Buso mi borom xam-xam bu mag bu ñëpp ràññee moo ko jullee ba noppi daat dund ci la waxee ne su mal axaru seyxu nam nu jaara ay talzazin subhan xada aw taara sang bi nga xam ne mooy doomi soxna jaara ji mi ngi fi bàyyeeko ci atum 1339 ci ñaar ki fan ci weeru zawal waxtu suba mi ngi dund juróom ñaar fukki at ak benn sëriñ Maamoor Jaara Mbàkke yal na yàlla yokk ay leeram te tas ñu ci barkeem te Maamoor Jaara ak seyxul xadim yàlla mi xam xëy buy moom rek a xam